ne jàppati nañ drogue bu bëri day ci suñu géej gi la maar day taali waaw dama ne la gaal ga ca boppam la mu yor ci ay totoll na ci juróom-ñett laa la wax asus démb daal ci altine ji ay booru secteur ci suba lañ ko jàpp dee te gaal googe ca Maroc la jógee allahu akbar doon dem nag ca diwaanu Guinée Conakry galay yéen kaa yi démb gaa gi te gis nga ci fàttali waaw juróom benn fan ci weeru juin bi ñu génn nekk di la jàppoon nañu benn gaal goo xam Mar d'Italie ministre Omar Gueye ci laa Sénégal waaw ne la a wax askan wi daal mooy gis nga ren ji lee du ñu yéeg ay gaal de gaal yooyee nga xam ne dañ ko doon yéeg daaw di xuus su fi a direct news ne ministre Omar Gueye day waaw daal di nay tagg nag programme décennal de lutte contre les inondations parce que Omar Gueye nee na gis nga 2012 mais am na ci ay dund yoo xam ne nit mënu a jaar lu mel ni route nationale bële rond-point RTS Dalifort Cité Soleil Ouest Foire booru hôpital Philippe Maguilène ne te boo leen xoolee eh, loolee loolee réglé ko le soleil fukki at yooyee day ngir xeex inondation fi mu nekk nii kay ne ah. <laughs> waaw alerte yéene kaay ne gouvernement bi day jàkkaarloo nañ ak député yooyee daal di cay indi kon ay gindi sur côté yéene xeex wàllum inondation yooyee waaw dama ne la defati nañ ci ay milliards yi milliards juróom-ñetti ci ay ministre indi nañ ci ay gindi deux cent quatre-vingt-onze milliards dépensé nañ ko ci juróom-ñetti atu yàlla laa ah. benn ci ay projet dama ne la programme wala plan décennal googee lu ëpp juróomi téeméeri milliards la cinq cent milliards na ko réew mi ko di yéene Ndakaaru njaay ci boppam moo neexul dund kenn mënu fee dund laa wax Dakar tàng na Dakar inondé na Dakar am na embouteillage Dakar saxaar saa ngi mel ni tulleeg male wàllum pollution ak jafe-jafe yooyu xam ne moom la ñu dund yëpp Macky Sall daal ma nga ca campagne déguisée bari <laughs> waaw critique yéene kaay ne siteu Macky Sall ba ca Thiès day waaw tey la a Seck nag di wane ne foofee mooy borom waa APR day deuxième division Habib Niang waaw est ce que nag danañu ko fay borom 24 heures yéen a kaay en tout cas mburoog sooba day waaw du yomb sa Thiès de déedéet Lamine Ngom APR Thiès authentique waaw nee na gis nga tey jëlee moom Idrissa Seck day ñëw na ci mburoog soow bi ñun waa APR ñu toroxal ñu yóbbu ñu second plan jàppee ñu kon ay xuusma ñàpp ñu nekk fii yelawaan ay place yu ñu toog bu président Macky di ñëw di suñu leader te Idrissa Seck moomee daa mës xas ak a toroxal kon suñu leader bi di Macky Sall APR nag la même bu nguur geeg dara mburoog soow ba day ca Cees ge waaw nëpp na de mburoog soow ba mujj naa nëpp de yàqoogu rëy moo am ci diggante waa APR ak réew mi laa la wax waaw waaw même bu dee ministre Augustin Tine daal dinay wax seen diggante taxul diggante ba neex de déedéet yéene kaa gi ne xam nga lan moo ca doy waar Thiès ci boppam moo ndaw Thiès rëyul de Thiès Mbuur a ko gën a rëy Kaolack a ko gën a rëy commune yam yor bëriwul te lu toll ak ñaar fukki ci ay doomu aadama dañoo bëgg a nekk maire la ilaha illallah waa APR a ngi nii waa réew mi a ngi ne l'info yéene kaay ne mobilisation bu ngand ba tey ngir gàttandu Macky Sall mën a jacees waaw guerre ba dana mel ni tulleeg màlle de ñoom seen biir waaw ku ca ne di nga wane li nga man ñaan ak Idrissa Seck day dañuy jéem a wane ne foofee ñoo ko moom waaye waa APR duñu leen bàyyi de déedéet daala si laa nga ca wet wa des parce que dafa bëgg a nekkaat maire Ndiaga Diaw parti démocratique sénégalais waaw nee na Macky Sall day bu waree dugg si ci biir Thiès gi lée danañ ko Sadibou Diop day porte-parole mouvement gëm sa bopp waaw ci source a nee na Bougane Gueye Dany candidat ci mairie bu Ndakaaru Ndiaye Gueye Diop banxaasu gëm sa bopp yëpp wax nañoo ak moom te moom tam d'accord na nekk candidat gëm sa bopp ci Dakar ak opposition bi le Le Quotidien yéene kaay jaale bi Macky Sall demoon jaale ji Khalifa Sall day waaw mais loolu mbirum social la waaye jëfal politique moo fa feeñ waaw parce que local la leen boole woon de local la nii boole waat leen te ci wàllu politique day yéene kaay ma jàmbal jàngi nee na on ne dit jamais koy tere évidence yéene kaay ne en tout cas ñu bëree ba bëri nañ ne Khalifa Sall liggéey nguur gi la xaru la mooy dem de laste jafe-jafe yi nga xam ne nag moom moo am ci réew yi ñu jégal ni lé mbaa du Sénégal ay seen àjjana 24 heures yéene kaay ne en tout cas projet bi lé soppi na code pénal Macky Sall mi mbaa du kutu boppam en tout nga xam ne dañoo mer daal bari lool maître Doudou Ndoye nee gis nga loi bi jox na la sañ-sañ nga manifester ba pare mu dugal kaso maître Malick Sall ne la ñu ak li am bokkul de daani taxu ko ni yaatu de ci wàllum terrorisme ministre de la santé day daal dinay félicité Maguette Sène maire Malicounda waaw ci campagne médicale bi nga xam ne ko doon def ca Mbour Maguette Sène day maire ya nga xam ne ñoom ñoo voilà looloo tax nag ba ministre de la santé day daal dinay félicité DG wu ko dubile di Maguette Sène Sud Quotidien ne atekatu conseil constitutionnel ba day mooy doon arbitre bu mujj bi nag enquête yéene kaay ne Arona Sy ñii dee dañ ne waaw ñii ne déedéet rawatina nag ONG Dakar Times de am na ci ay fonctionnaires yoo xam ne day seetal xaalis bu saleté blanchiment de capitaux waa JA baa wax libération yéene kaay ne Gueule Tapée day Khadim Diouf waaw moo jël Dieynaba Diallo karimiste ba daal di koy ba ma xëy na ca deuxième étage la ilaha illallah dem naa ca la mujj diggante tafatin mi ne ak Boy Niang 2 du yomb de Maxime Bargan day diggante Gris 2 ak Abdou Diouf nee na ku jum daanu France day daanu na démb stade yéene kaay de waa France day waa Suisse leen éliminé de maa kii toog na maa kii toog na suul nañ ko astafurla France toog na suul nañ ko <laughs>